te yeesalaat tamit sunu jaayanteeg seexul xaddim te sant ko ndax dëgg la ay doomu aadama lañ te loolu ak cant war na ci ay jullit lañu te ak cant war na ci ay murit lañu it loolu muy beneen xaas boo xam ne sëñ Tuubaa moo ñu ko faggul ndax kenn ku ànd ak moom koo xam ne du moo la tànnal boppam amul sirtu lazi saa illaahu wal illaa yasaawu ma sirtu bi laa durin wala kon lu ko soob rek moo tax nit mën a ñëw bokk ci njabootam euh, tawféex yooyu yëpp bu dajee nag sëñ Muntaxa wooñu ci liggéeyub cant ndax liggéeyub cant moom mooy liggéeyu ndimbal mooy liggéeyu mucc mooy liggéeyu texe mooy liggéey boo xamante ne mooy wane na lislaam am na dam tey jii dafa mel ni noon bu mag bi nga xam ne dafa waatoon ne dina féréwlu jullit ñi dina leen yàqal dina dina dox seen digganteeku cant suñu borom la mu ko tontu woon ne ko inna ibaadi laysa laka alayhim sultaanun illaa man ittabaaka min alxaawin la mu ko tontu woon dafa mel ni tey jataay bii bokk na ci ndax fii ñuy sant yàlla di wéetal turam bi di tudd di julli ci yonent bi saa salaam di di boole xol yi loolu mooy jataayu tey bi liggéeyu cant googu nag dafa doon loo xam ne ah dina ubbi buntu yëpp dina euh, maanaam lépp lu ñu mënoon a bëgg di ci ngir ngir di ci di ko wut wala di ko sàkku wala lu ñu ragal di di bëgg bëgg cee mucc jarul sañu ñu di ko fi tudd ndax sëñ Muntaxa dafa wax ne lu mët a ñaan sëñ Tuubaa ñaan na ko te suñu borom may na ko. lu mët a fàggu sëñ Tuubaa fàggu na ko te jubóo na ceeg boromam kon fii moom kenn warut a wax soxla lenn la ñu war a wax mooy jàng xasida ak sant Serigne Touba jàng xasida ak sant Serigne Touba jàng xasida ak sant Serigne Touba lii daal mooy mooy liggéey bi leneen li ci des mooy bu ma kenn ne kii mooy Hizbut Tarqiyyah kii mooy Majmahun Nurayni ñoo ñëpp aw tur wi ñu tuddee la ngir mën ñoo wommat ñu dem ci sëriñ bi waaye xam ne duñu moom de tur wu ne jëmm lay woo du ñu jës bu du ñu miimiya du ñu maraxib du ñu wakaana ay dongo lañ ñu xeebu yoo xamante ne inni faqirun xaqirun laysa li xamalun sëñ Tuubaa nangul gim ñu nangul képp mustahil la waroon doon mu nangul ñu kon fi toll ni ñun sunu cant daal bu fekkonte ne du dañoo laaj sëriñ bi ne ko nan lañ lay sante mu ne ah cant moom fexeel ba dëppale ak li lislaam bëgg bu du nag loolu Bakar ñi bi dina metti fii trop ndax mooy yëg-yëgu aada yi ñu baaxoo ko gis moo tax loolu moom ñoo ngi ciy musulu di dellusiwaat nag ci taasimoo bi sunnati waaw alxuraan nga mën a jàng na yaa ngi sant xasida nga mën a jàng na yaa ngi sant berndeel jullit ñi nga mën a def na yaa ngi sant loo ci dolli te bokku ci rek santatoo waaye yaa ngi xaram kon lii daal moom laay wax mbooloo yëpp nag menn mbooloo la amul kii mooy mbooloo sàngam ndax sëñ Tuubaa koo xam ne ay tarixa tarixa sax sosu ko nit ñee nit ñee umpale rek defe ne sëñ Tuubaa tarixa la yor waaye sëñ Tuubaa sosul tarixa dafa fekk yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi woon mu xaw a fargay mu yeesalaat ko gajj-gajj bi bay ñax mi wax ne ku bëgg dem na ñëw lislaam ji ji ji ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam woon fii mi ngi nii loolu la sëñ Tuubaa def kon kooku du ñëw di di indi ay ay ay xajjaloo ci biir mbooloom moo tax yaa rabbi halil muridina ma fi isnikal xasini wa chamlañ ma kon lii daal mooy bis bi nañu joxantewaat loxo te mu doon lu dëggu ci nun ni euh, muy dëggoo ci nun nag mooy nit ku ne danga naan tànn nga ko sëñ Tuubaa tànn moom ngay naw wekk ko yëkkati ko ba doon nangoo xool leneenam bu dee wekk nga sëñ Tuubaa waaye boo bëggee nit ki lijjanti ay ayibam te yow sa bopp bëggoo ko lijjanti say ayib